d' accord léegi yow mi yaa fi tudd mbiru adversaire bugguma ko woon wax léegi kan ban adversaire ngay gisal Reug Reug bu ma wax ay dans le dans le temps nag je veux que nga vraiment foo fooy teg sa baaram nga ne ma maa ngi xool kii su paree bëgg naa kombaam ak Reug Reug. non Reug Reug nee naa la c' boo xam ne c' est un boo xam ne dama la prévenir dama la. dama ne la ma bëgg foo teg sa baaraam parce que je sais que Reug Reug na ci mbër yi ëpp adversaire mais dama bëgg foo teg sa baaraam nga ne ma mbër tel mbër tel. suñ d'accordee rëg-rëg seen combat dina neex. rëg-rëg su neexee adversaires yi bëri nañ comme ni nga ko waxee Modou Lo mi ngi fi Boy Niang mi ngi fi Lac de Guiers mi ngi fi Ama Baldé mi ngi ci fi Zarko mi ngi fi France su daane Bombardier mi ngi ci bëri nañ vraiment les ses adversaires sont énormes moo c'est le un des rares boo xamante ni moo ëpp adversaire ci làmb ci donc ba ci tafaatin mi ngi fi ba ci tafaatin mi ngi fi ba ci ba ci ci ba ci Eumeu mi ngi fi il a beaucoup d'adversaires Reug léegi ma reformuler waat question bi yow ñi ngi ma limal ñëpp ñen nga ci bugg kombaam ak Reug Reug su ma doon tànn su ma doon tànn vraiment euh, su ma doon tànn nag ma xam ne que su ma ko doxee mu sotti le roi des arènes lay koy jox ñëpp la ñëpp le roi des arènes la ñuy wër muy Modou Lo mm-hmm. bëgg nga combat Reug Reug ak Modou loolu bëgg naa ko keneen ak keneen bëgg yow mii sax bëgg nga ko